budget lay doxe ñun tey mën nañu wax bi may mujjee ci gouvernement bi li liñ daan collecté ci ay taxes mille cinq cent mille cinq cent mille sept cent milliards la genn wàll gi huit cent milliards yi dañ koy fay ay salaire fonctionnaire sept cent milliards yi dañ koy fay ay service à la ñaata moo ci des cent milliards li ci des partenaires yi ñoo koy indi ñu dem lebi pour mottali budget bi 4000 milliards c'est que bu ñu nëbbante bu ñu naxante. <laughs> waaw waruñu nëbbante moom. waaw bu ñu nëbbante bu ñu naxante xaalis bi kenn luxasu ko jëlee ko ci lii la yóbbu ko ci lële jàppale ay sénégalais moo am ci mbay mi ren. ok 32 milliards yoo xam ni da daan la la la président économiser ci mbayum gerte bi pour que ñu mën a am résultat yi ñu am am na ñuy wër di wax naa noo xaw ma am na ñu ko sañ a wax naan non campagne bi doxul ah ren gerte amul lii amul mais. non loolu moom kenn waxu ko. waaw ah, si. gerte amul kay kenn waxu am na ñu ni gerte amul. xanaa kay bu ñuy bu ñuy bu ñuy bu ñuy wax ci njëg gi leen gouvernement bi imposé pour ñu jaay ko. déedéet wax te taxul. gouvernement bi gouvernement bi imposé wul njëg. gouvernement bi. non nee na au delà de au delà de deux cent dix dix francs xaw ma. voilà voilà. gouvernement bi daf ni deux cent dañu fixé deux cent dix. waaw du gouvernement bi sax benn commission la. parce que ñi aussi dañuy indi amalgame commission bi ñëppay toog ñu fixé après jox gouvernement bi validé ak président de la république commission bi moo xëy fixé ko 210 imposé wuñ benn baykat ñiy produire huile huiliers yi ñoo commencé woon di tiit ni que ñoom gisuñu luñ jënd parce que chinois yi jënd nañ mm-hmm. mais chinois yi liñ jënd mais c'est entre ba kilo dem na ba 300 am na ñu jaayee trois cent cinquante. bien léegi ñu bëgg a wax naan noo non euh, euh, usine diwlin yi dañuy tëj mille cinq cent emplois ñaata baykat ñoo fi nekk. Mhm. ñaata baykat ñoo fi nekk. Sénégal pratiquement 70 pour cent nit ñi ci bay la ñu ki ñooñu ñooy tranche sociale bi xam nga ñoo ñooy tranche sociale bi nga doon laajte mooy ñi nga xam ni ci 3 mois la ñuy liggéeyee luñ dundee at benn hectare la ñuy bay am ci 800 800 800 800 kilos gerte dem jaay ko moom la ñuy dunde at bu xaalis bi dee waaj a jeex ñu jël seen benn doom wala seen ñaari doom yónnee Dakar mu ñëw liggéey si ñooñu amuñu climatiseur ñenn ñi amuñu làmp ñooñu li ñuy dundee ci ñetti at lañ koy ñooñoo jar a jàppale ñooñu la ñuy jàppale. mais mënuñu jàppale Papa Ngagne bi nga xam ni. non bàyyi Papa Ngagne yow tam mbay laa jàkkaarloo waaw waaw mais laa jàkkaarloo a wax. boobu léegi yaa ngi wax ay yooyu nga ci wax waaw waaw déedéet xam naa ni mën nga may wax. voilà mënuñu jàppale Youssou. waaw waaw mënuñu jàppale sama xarit Youssou Ndour. tam bàyyi jàmm déedéet moom dina nangu ma ko mënuñu jàppale sama xarit Youssou Ndour bi nga xam ni saalam daf ko climatiser néegam daf ko climatiser doom néegu biraan daf ko climatiser kooku am na lu mu fayee courant kooku duñ jël subvention wu état bi di ko def ci te ko teg ci courant loolu mooy dëgg. ok bu ñu fekkoon ni que ki ma la wax léegi. dëkk fële nga xam ne ci bay ñaari làmpam la am wala sax amul courant ñu yokk facture am loolu bu boobaa ñu ni dañoo nekk. d'accord léegi Mame ma loolu c'est important dégg mm-hmm. naa li nga xam ne wax nga ko mm-hmm. ci courant bi yëpp euh, man aussi ba tey damay jàpp ne boobu tranche bu fantôme la parce que ku ne suma facture wàññeeku na léegi loolu moom. mais duñ ak ay ñoom nga dëkk dans la banlieue maa ngi dëkk Pikine laa dëkk non dama lay wax rek kon bul ma wax ay ma sama xarit ak keneen ak keneen déedéet fi ma dëkk samay xarit ñu ngi fa léegi xam nga lu ma la bëgg wax man dama ne la gisuma kenn ku ma ni suma facture courant wàññeeku na loolu la kay leer na léegi may ma ñu dugg ci leneen s'il te plaît non xoolal wàññi courant bi non ci tranche sociale bi nga wax laa gisul ma mais dama ni la waxuma ni que dañu wàññi tranche sociale bi li ma la wax dama ne la yokk bi laalul transsocial loolu laa la wax ni transsocial boobu laa gisul kenn laa la wax ku ma ni uh-huh. ku ci ne ci ñoom lañ man la ma gis ñu ma koy wax mooy sama facture dafa cher xaw ma fu ma koy fay déedéet papa nga ñi ci ñi ci ñi ci doon fo sax jël seen facture photo ko dugal ko Facebook gars yi bi ñu expliqué fi mu jaar ñoom comprendre na. d' accord léegi Mambay leneen yokk na muy diwlin bi. Mhm. loolu moom mooy li nga xam ni aussi lu bettaate la. Mhm. mënuñu ko woon xalaat. Mhm. dégg naa ñi nga xam ni ñoo nekk ci euh, euh, commerce extérieur ñu wax ni parce que euh, bateau yi war a indi diwlin bi dañu tàkk ak détail yooyu est ce que loo fi ñu jëm ñun jëmuñu ci inflation. non déedéet xam nga tamit bu ñu bu ñu dégg ni teel rek ñu dem. waaw mais c' est important aussi ñu xam fan lañ jëm. économie bu normal inflation mën na yegg ba 2 pour cent loolu at bu nekk yëf yi mën naa yokk ba 2 pour cent. loolu mooy dëgg loolu mooy marché nee naa la effort yu bari le président def pour que entre 2012 ak 2019 ñu bloqué prix yëpp maintenir subvention yi ngay wax nii njëg li day yokk ma état bi moo ko daan ñëw dañu changer politique bi ñuy def dañoo bëgg Sénégal ñëpp am courant dañoo bëgg Sénégal ñëpp am ndox. léegi man maa ngi ci diwlin bi. mais moo tax moo tax dama lay wax. man man ci diwlin bi laa ne génn naa moo tax dama lay wax. non boo nee njëg bu yokku rek. mooy est que subvention moo fa dañ. noonu rek la njëg di yokkoo soit affaire bi day yokk fële wala ñu yokk tax bi wala. ki koy produire yokk ko. waaw mais loolu nag da ngeen ko doon campagne. déedéet non su ngeen ko campagne woon nit ñi dégg ko. mais mais wéy bu ñu demee ci bu ñu gañewaatee. li euh, bi. li ñu campagne subvention bu fekkonte ne lu ngeen campagne la amul problème. non li ñu campagne. bu bi mooy. papa ngañ da ngeen a defagul atu yàlla. président alors li ngeen ak li ngeen posé mais la ñu campagne accès accès universel la ñu campagne <laughs> accès universel ci ndox ci courant ci assainissement mais loolu la ñu campagne waxatuñu woon ne que non mbënn mi dakaar rek la ñuy faj de bi ñuy ñëw loolu moo nekkoon priorité bi ñuy ñëw régler problème courant bi moo nekkoon priorité léegi dañu wax ni que dañuy jox courant ñëpp xam nga bi ñuy ñëw 500 mégawatts lañ fi fekk ak circuit transport boo xam ni la yàlla xam baax na ñu yokk production bi. Mhm. production bi mënoo ni yokk naa ko rek da ngay bàyyi parce que nit ñi ñi ngi màgg immeuble yaa ngi tabaxu. ville yi ñi ngi extendre ñu ngi tabax ay yeneen ay yeneen cité ñooñu dañoo soxla courant bu ñu yamee ci 1000 mégawatts yi arrêté investissement bi mais kon fii ak fukki at li ñu daloon daf ñuy dabaat bu ñu deful projet KMS 3 KMS 2 toolu courant yi dul jeex <laughs> dama gis ñu inauguré yu dul jeex. no c'est-à-dire ak toolu courant yi nga gis yu dul jeex yépp loolu moo tax ñu jóge ci 250 mégawatts tey ñu nekk ci pour la première fois léegi ay giga la ñuy wax au Sénégal mais nee naa la malgré tool yooyu yëpp il faut ñu continuer investir ci production bi malgré yooyu ngay wax yëpp il faut que transport courant bi fii liñ fi fekk dafa vétus dafa yàgg day manqué courant bi te baaxatul mën na dagg à tout moment il faut que ñu créer senele créer li ñu wax redondance. loolu dafa laaj investissement. je sais que 45 pour cent wu sénégalais yi. courant bi amuñu courant. courant bi ñor na la trop. non non. non c'est important ñor na la ñor na ma parce que dafa tax ñenn sénégalais jóg defe ne ni que dañuy nax nit ñi ak ay campagne wuñ ko. li nga wax nii dafa dugg ci bopp sénégalais yi waxuñu woon ni que non dañuy dindi yenn subvention yi mais ku bëgg a def cinq accès ku bëgg def cinq accès universel mais xaalis boobu nee naa la amul feneen ci taxes yi lañ koy jëlee. d'accord dañ koy collecté dañ koy lebi. merci alors mais loolu boo ko bëggee def. waaw boo bëggee ñëpp am courant léegi 55 pour cent. ñu mhm. am courant peut-être 67 pour cent 70 pour cent ñoo am ndox. d'accord ñeneen ñi ci des suñu ay sénégalais. waaw. voilà d'accord d'accord Mame Mbaye ki dëkk Fongolimbi mi amul courant kooku du sénégalais. Mame Mbaye est-ce que yaakaaroon nga ni. Mhm. ci ci ci Sénégal dinañu dem ba euh, distribution de flyers.